bismillahi rahmani rahim ñoo ngi sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad di sant suñu ñaari waajur di sant suñu kilifa yi ci yi fi teew di sant mbooleem kilifa boo xam ne dëkk nga ci koñ bi ñu ko defee te di la baalu ak ah di sant waa Jaxaw di sant waa Jàmmagën di sant sama ñaari mag yu góor yi toog fii ndax ñoo ma dooleel muy kan. di sant di Talla Diop ak Pape Xara di sant délégation bi jóge di sant Talla Mboup ak délégation di sant madame Fatou ak délégation. di sant Ndeye Daba Mboup. di sant Modou Fall di sant réseau des enseignants di sant Diegay di sant Lamine di sant Ami Collé di sant Tafa Ko mu Abdou Mbaw di sant képp ku fi toog ak képp ku fi ñëw di santit Mariam Diop Sylla di sant mbooloo mi fi teew yëpp ndax olof da ne bët mën naa xool fam ko neexee waaye tànk fu mu dem dafa fekk mu neex borom kon jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm déclaration bi nag mën naa bañ a yàgg ndax cooli cooli siree ana mbooloo mi jigéen ñi. Siré Dia jërëjëf laa bëgg a dégg jërëjëf laa bëgg ngeen wax ko Siré moom mi wóolu DG Siré Dia ba jël poste dénk ko ko mu ci dimbale ndaw yi ak askan wi ci Thiès waxuma Thiès mais Sénégal yëpp ah di wax ne DG man de Astou Gueye dama naan yaa gaaw ma gaaw ndax nag jigéen ñi ba ñu ma seet seet ne ma mënatuñoo bale seeni bale tas na seeni buret yàqu na ma ni leen denc ma lu ma leen jox de ndax aw ma benn poste de responsabilité dama nekk Baye Fallou Macky Sall nekkal ko ci naaj bi. buntu bu ne fëgg naa ko muy ministre di directeur mennum directeur général Siré Dia moo ma ci jàppale ci matériel ne ma joxal jigéen ñi. kon DG dama ni yaay Fallu Macky Sall mais man Astou Gueye Ndiaye maay sa Baye Fall ndax yaa gaaw ma gaaw te yaa def ma gis. ah di leen wax ne DG li muy waxtaane bés bu ne doo toog ak moom mukk te new la. góorgóorlu leen ci xale yi utal leen kayitu juddu mag ñi ñu dem inscrit ci liste électorale yi ndax ubbi na waa jaxaaw yéen ku ci amul carte électeur école jaxaaw ubbi na soo fa demee bindu 2017 ngeen euh, voté falaat président Macky ndax Siré Dia looloo ko tax a di leen wax ne. le DG Siré Dia kenn mësu ko gis muy taxawaal kenn mësu ko gis mu yor oto di wëndeel kenn mësu ko gis mu wax lu mu war ta wax le DG Siré Dia boo jàkkaarloo moom moo la woolu nga dem direction générale fekk ko fa kon jërëjëf Dia ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di lancer appel ci président ñun jigéen ñi dañoo bëgg Thiès mu téye jël ko teg ko ci loxo Siré Dia mu yor ko ndax na kiñ naan mooy meer di Idrissa Seck Siré Dia ko dàq Thiès ndax la mu waroon a def Thiès yëpp Siré Dia ngi koy def te Idi koo xam ne da nga nekk Thiès bàyyi fi sa njaboot nee nga da leen a dénk Thiès ñu jël suuf si di saa saaxee di def lu leen neex faale wuñu la mënaloo leen dara ku lu sa njaboot dara kenn du la dénk Sénégal DG mu ngi ci consultation gratuite yi mu ngi def ci moske yi mu ngi def ci jumaa yi mu ngi def fépp dama ni xale yi Thiès ku ci dawalul woon Jakarta yaa ngi jaay café Touba loolu wàññeeku na ndax la DG Pape Siré Dia tàccul leen na ko kon président dooleel ñu DG Pape Siré ko président dooleel ñu Pape Siré ndax li mu yor mu ngi koy bokk ak Ngor mu ngi koy bokkal nit ñi ñun jigéenu Thiès dañoo bëgg président Macky Sall nga dooleel ñu Pape Siré Dia yëkkati cees dénk ko ko ñu ànd ak moom fan la 2017 au premier tour yu amul benn werante di gërëm aussi ñi nga xam ne ñoo nekk sama ginnaaw muy Lamine Gueye Lamine Gueye Pape Pape di sant ñëpp di gërëm it sama xarit sama mag muy Ndeye Daba Mbuub di gërëm sama frère muy Samba Ndiaye di satit sama grande sœur muy Awa Sarr dëkk fii Jaxaaw yéen ñëpp ñu ngi leen